Euh, li ma bëggoon a laajte rek mooy euh, euh, Mamour Diallo sa kii la nu mu tuddati yow yaa koy défendre li ñu koy tudd ci dossier bi bëri na torop est-ce que envisagé na porter plainte surtout par rapport ak ojo yi. ah lu ma ci xam wax ko ba ci rek moom de ndax man ñoruma xam nga man dama am dossier bëgg ma ko ma divertir. xam nga yow ci affaire bi man étranger boobu ko jàppandoo lépp dana am loo rëcc da ngay sa dossier. il faut professionnel bul nangu rek lu ñëw rek tasaare la disperse la da ngay xam ne man dossier viol laa yore yore bu dossier ay ojo ak ay sëriñ ak ay ministre yu tudd ay ñeneen ay bugaan te bugaan xamul xale bi ay El Hadj Diouf te yëguma tinuma ñuy sosal nit ñi te audio yooyu dina ñëw ndax fi mu nekk nii dañuy dox ci maayanu nit ñi kems y a un laboratoire de manipulation chez Sonko il y a des experts am logiciel am am expert en phénologie mooy fen fen dañoo fen ba dañu dañuy créer benn laboratoire de fen di capter xel xale yi xamul dara xam nga xale yu bëri fekk wuñu 23 juin la 23 juin léegi ñaata at la 11 ans xale yi amoon 8 ans ak 7 ans léegi dañuy voté dañu am vingt ans. ci xale yu huit ans xamoo dara damay toj assemblée xamuñ ci dara waa ji ñuy gëmloo ni mooy guerrier <laughs> fan la wane guerrier kay wuy gendarme ni ngay lox sa immunité parlementaire tëbal nañ ko ngeen d'accord ma nañ ko tëbalee du baaxul du sax baaxul ndax ragal wujjul juge bi ngay tamaamaalu naan fii laa jaar ak feete heure bi la woon passé na am naa fekk wi naan dañ ko war mu jaar fi bëgg te boobu heure bañ ko wax passé na bu yàgg treize heures jot na si neuf heures la ko convoqué ñu gaawal jaar corniche bi mu ne non fu ma neex laa jaar mais kii mooy kan mais ki ku yàpp ah mais am na droit jaar fu ko neex na ah ñu woo la neuf heures juge lu tollee tribunal jox la heure heure ba passé de cinq heures de temps de plus ñu ne la gaawal jaar yaa ngi tardé lool lool lool lool nga ne non dama jaar buntu kudd te yaay teeru ma ma progressé ba Tilène ñu teeru ma ma progressé ba Sandaga ñu teeru ma ma jaar Pétavin tourné yegg Sandaga ay 19 heures. yegg tribunal 19 heures te 9 heures lañ la na droit tanaamat ba 19 heures tu juges wala 9 heures l'heure c'est l'heure avant l'heure ce n'est pas l'heure yow la après l'heure ce n'est plus l'heure voilà maintenant naa fekk yi naan